convenablement pris en charge parce que si ce n'était pas convenablement pris en charge aujourd'hui réew mi tey kenn waxul waxam mais li ñuy inventé ci réseaux sociaux yi tous les jours nga foog ne du ñu toog rek seetaan leen ñuy inventé ñu bàyyi leen ci invention boobu xam nga au début da ngeen leen ko bàyyee woon réseaux sociaux yi ay années yu bëree bëri ah mais dernièrement c'est une souvent dire que da leen euh, xeex ñoom ci seen terrain sànq rek seen task mais loolu foofu laay waxee en fait est-ce que loolu moo war a nekk seen seen taxawaay. non c'est-à-dire que dafa am taxawaay gouvernement. travail état même boobu ñu ngi koy dox on ne reproche en vérité gouvernement ba nga am ay résultats yu leer nañ yu ñu teg bët malgré la crise économique mondiale. Mhm. gouvernement bi am ay résultats kenn reproché wu dara Macky Sall ci liggéey ci engagement pour la l'Afrique et pour le Sénégal mandat mi ngi mu ngi jox Afrique c'est une fierté africaine. mais sur le plan politique il y a un travail à faire ce ce le parti politique la coalition muy parti muy coalition am nañu mission am nañu objectif objectif yooyu laa wax ni on est en politique moi Abdoulaye Wade de nous dire qu'on fait pas la politique en rasant les murs c'est une question de responsabilité et ces responsabilités on les assume en parlant de responsabilité vous êtes ministre de la République Pape Malick Ndour est ministre de la République gis nañ à côté de lui quelqu'un dire que il va aller brûler la maison de Ousmane Sonko mu taxaw di ko xool yéen APR gisuma kenn ku condamné propos yu mel noonu. yooyu tamit est-ce que yu baax la. écoutez yow chaque bi taxaw wax moom nag ne bakkanu chef de l'État mbaa bakkanam. mais ñooñu ah, amuñu benn kii en fait ah, maanaam loolu bëgg a wax mooy li ma a réew mi jox mandat yéen fi nekk actuellement yéen a dirigé mais ni Pape Malick Ndour moo ko wax nga mën ma cee wax mais xale militant buy tontu wax ay seen façon nu ñu waxee noonu la militant ba tontoo. vous cautionnez maintenant waxuma cautionner parce que bu ñu nekkee ci biir président wax nañu ko. ñëpp toog ah. mu ne vous ne pouvez pas avoir la même posture. ah il a condamné ah non le président toujours mu wax ñu dama bëgg ngeen yem ci langage bu correct bëgguma kenn ku nekk ci sama wet di wax lu ñaaw di saaga. Mhm. bu leen topp ci ñoom ci seen ci seen mënin def leen réaliser mais quand vous parlez respectez les gens avec lesquels vous parlez. le président le rappelle tous les jours maintenant un militant par sa fougue par son engagement mën na wax leen mais après aussi on se parle on dit non lii stratégie wu ñun lii du suñu stratégie stratégie wu saaga ak wax lu ñaaw ñëlal ñoo ko moom ñun président Macky Sall la ñu digal mooy yaru ak yar ñi àndal ci loolu la ñu nekk